xale ak partisan Mame Boye Diao la Mister Shake la gars yi dugg leen dugg leen dama ne woon du def live dama ne woon du ma def live waaye il faut ma def live parce que actualité bi xale yaa ngi nii di xeex di sànnante Mame Boye Diao jaajëf junior booy gars yi boo leen duggee like leen partager leen ñu def benn live bu gàtt wax ci actualité bi ñu wax ci actualité bi parce que fi mu nekk nii Macky Sall am na problème bu rëy Mame Boye Diao dàq nañ ko caisse de dépôt et de consignation Mame Boye Diao déclaré na candidature am Macky Sall am na problème Amadou Ba Amadou Ba mi ngi ci problème bu rëy parce que Benno Bokk Yaakaar bëgguñu ko Sonko légui amna chance parce que mam boy jaw sax xarit Sonko am nu muy mu ñëw ànd ak Sonko gay gis ngeen gis ngeen xalé yi lan mo leen metti parce que mam boy jaw dañ ko dàq xalé yi ñëw xamna naa di xeex yeneen booy tamit song leen ko Senegal li day wone ne boy yi bu ñu waré xex dinañu xex Macky Sall dafa yaakaar ne Antoine Diom dafa yaakaar ne noot na boy boy yang ini ngi nii seen yaram dafa tàng mënu leen jàpp ñoom ñëpp dugal ci kaso bi te ñëpp Sonko lañu Mame jaaw nag moo tax ñuy xeex ça chauffe ça chauffe Sénégal commencé waat na xosanto am na ñaari moor xosanto xosanto rey nañ fa ñaari booy Antoine Diome jël na avion dem fa mu demee avion jël avion dem ci ginnaawam Dakar mu ngi tàkk waaw Stapsila ana Nefertiti dafa ne woon lu nga doon laaj ma ne ko duma def live waaye nag tey information yi dafa takkar naa sax dama war a liggéey bi ci kanamee ma ne xaaral ma def benn live bu gàtt waaye gaa yéen tamit da di like yéen tamit da di like da ngeen di like da ngeen partagé day wane ne Macky Sall am na problème mënul contrôler lépp waaw Macky Sall dafa bëgg contrôler benn bokk yaakaar Mame Boye Diao ne du ci dal du ànd ak Amadou Ba guinéen mu jël responsabilité mu annoncé candidature am ñu yeewu ñu dàq ko CDC Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall woo ko fale ne ko kaay nga nekk premier ministre Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ne maa bañ nekkuma premier ministre Macky Boun Abdallah dafa mer Aliou Ngouille Ndiaye moo njëkk a kon fi mu nekk Macky Sall mu ngi ci problème bu wul rëy dina am yeneen nit yu bàyyi ndax yeneen nit yi ragaloon. bu ñu gisee Mamboy Diaw risqué parce que ñi ñëpp ay milliardaire la mambo Diaw milliardaire la ci ay waay Sénégal mi ngi bëgg a neex Sénégal yi ngi bëgg a neex gars yi Sénégal yi ngi bëgg a neex ku ne woon Macky Sall gars yi ñeme nañ ko ba léegi doo ko gëm Macky Sall reykatu nit Antoine Diome reykatu nit Marème Faye Sall mais gars yi ragaluñu leen mambo Diaw ragalul guerrier la mambo Diaw guerrier la vraiment da nga koy fan parce que lii mooy nit nit da nga am principe bu ko neexoon mu ne maa ngi CDC di laal sama 20 millions par mois wala 30 millions par mois ah mais Mambo Diaw dafa jël poste bu baax CDC poste bu baax la jël waroon mën a nekk ministre ci Amadou Ba Mambo Diaw a risqué ne man soxlaw ma man président laa bëgg nekk parce que Sénégal dafa bëri ay mégalomane waxoon naa leen ko ku jug yaakaar na mën na mën na euh, diriger Sénégal léegi nag lii day jox Sonko dëgg. tey jox soo ko dëgg que ne Macky am na problème Sonko waxoon na ko France 24 balaa ngay jéem écarte écarter Ousmane yow jéemal nga ut sa candidat ba pare. Amadou Ba bëgguñu ko nekkate Macky Sall erreur bu mag la def Amadou Ba la le c'est le candidat la désunion xool leen lii booy yu bëri fii mam booy jaaw la ñu àndal dañoo mer ñëw di fekk ci yeneen booy yeneen booy di leen sànni xeer. wa Dakar ak ci ñu bëgg wax né ñi booy yépp Mambo jaaw li ñandal sa papa pas vrai Mambo jaaw yi ñoom ñoo ñëw xam naa li ñu dakk Mambo jaaw Mambo jaaw ñu ana sa candidature ñu dakk ko xamna ñu mer di kaas yeneen boy ñew di xex ñoom jaajëf premier premier yëpp ya ngi bëgg a neex parce que Macky Sall amna problème bu reuy Mambo jaaw dafa déclarer candidature am te am lu mu wax ci Amadou Ba man sax ko dégg ci li Wade waaye xam naa ne moom du nangu guinéen bi nekk président ci kawam Boun Abdallah dafa mer Abdoulaye Daouda Diallo dafa mer Macky Sall dafa woo Abdoulaye Daouda Diallo <laughs> ci saasi man pour man affaire bi c'est pas grave eh, eh, pour man grawul jaajëf Nefertiti gis nga te Nefertiti mu ñu ma dama ne woon du def live mais li la gis video bi la gis ak ak liñu wax ci Mame Boye Diao ma kon il faut il faut que may def live xaaral ma tegaatale leen vidéo bi oh xaaral ma tegaatale leen vidéo bi ndax Mame Boye Diao dafa jël responsabilité waaw Mame Boye Diao dafa jël responsabilité wax deug même bu du dara bokul ci ñun mais boy bi il a du courage gis nga ni da nga am courage waaw il a du courage mu mu défier Macky Sall waaw li man dama yaakaaroon ne c'est du cinéma mais nak yëf ya nga bëgg nek deug ah gaay li du cinéma ndax ay booyu Mamboy Diaw ñoo mer xamna naa Mamboy Diaw leen yoni nee na dama leen gën def du bruit ñu ñoo commencé déconné yenen boy commencé xamna bañ ñu yàq seen liggéey boy Sonko yi. commencé dal seen kaw ñuy xeex seen biir mais ñii dañoo bind ne booy Mame Boye Diao ñooy xeex gis nga gis ngeen xeet yi mais grave ana Antoine Diop booy dañoo bëri booy yi mënoo leen jàpp ñun ñëpp ko dugal ci kaso bi boo leen yaakaar ne révolution bi jeex na da ngeen di nax seen bopp booy teel seen gën a yaram tàng sa yaram teel teel a gën a tàng tey lu ñu gën a bëri xool leen comme ay njéeréer li ñuy wax l'instinct de groupe l'instinct grégaire mbooloo mooy doole booy bu ñu bëree dootuñu ragal kenn li Mame Boye Diao dafa déclaré candidature am ne moom du ànd ak Amadou Ba Macky Sall li mu wax faalewul Macky Sall ah, ragalul Antoine Diome CDC jëlal sa CDC xam naa dañ doon dafa doon waaj a démissionné Macky Sall profito daal di ko waaw Mame Boye xam naa da doon waaj a démissionné waaw waaw APR mi ngi waa dem kaa kat appui ndax Macky si saa si ba mu tabbee Macky Macky ba mu tabbee xaaral ma Macky ba mu tabee tabbee euh, Amadou baax ci saa si dafa convoqué Abdoulaye Daouda Diallo pour jéem ko wax ne ko loolu ñu observateur Youssou Ndour moo ko bind mu ne Abdoulaye Daouda Diallo léegi léegi da ngay ñëw nga nekk premier ministre Amadou Ba gars yi xool leen loolu guinéen président beneen guinéen premier ministre ndax Abdoulaye Daouda Diallo neddu la kon daal Macky sàll daal moom daf ñoo yëpp daal moom daal dafa yaakaar ne Sénégal daal tukulóor yi <coughs> kaay ngeen baal moom Sénégal yi tukulóor yi ko moom Macky Sall daf ñoo yëpp parce que nan ngay jëlee Amadou Ba président Abdoulaye Daouda Diallo premier ministre heureusement Abdoulaye Daouda Diallo ne ko nangu ma merci te Abdoulaye Daouda Diallo bu nangu woon Macky daf koy rouler dans la farine parce que Abdoulaye Diallo moo yor Podor gars yi ngeen baal kii def na am naa fi mouchoir Abdoulaye Daouda Diallo moo yar Podor léegi Macky Sall daf ko ndor a jël mu campagnal euh, Amadou Ba campagnal ko campagnal ko ba euh, nu mu tuddati euh, campagnal ko ba gars yi ngeen baal ma affaire bi dafa am annonce ba élection yi waaj a ñëw léegi nag you know, could I get a prayer minutes? Man, now open for business in the same location on deck three midship. To get a the easiest guy and balmer. The gangway is by walking the middle of the ship and taking the midship stairs or midship elevators right down to deck three. I welcome. Get ready for Kona tomorrow. Highlights of Kona are all about marine life, guy and coffee. The short desk will be open until 11 a.m. Come, sir, I'm going to Staying on board. benn boo yaakaar mi bëgg a neex téléphone bi maa juutalu loolu moo fi jot xew looloo fi jot a xew xaw Abdoulaye Daouda Diallo Macky Sall daf ko ndaroon daf ko jël mu campagnal Amadou Ba ak Matam après nag bu Abdoulaye Amadou Ba Abdoulaye daal doon am benn marge de manœuvre Macky bu ko neexee mu nax ko du ko def du ko def premier ministre moo tax Abdoulaye daal Diallo daal di bañ nga yow Abdoulaye Daouda Diallo bañ Mame Boye Diao ñu dàq ko Aly Ngouille Ndiaye moo njëkk démissionné Boun Abdallah convoqué nañ ko moom it am na lu muy demee bu gisee li Abdoulaye Diallo def mu mer dégg naa Amadou Ba woo na Mame Boye Diao woo na euh, ak ak. Euh, Abdoulaye Daouda jàllo mais bu leen woowee lan la leen di wax di leen jéem a te moom xamul ne ñoom dañoo bañante Abdoulaye Daouda Diallo ak ak Amadou Ba dañoo bañante parce que euh, euh, euh, Amadou Ba defe naa dafa dàqoon Abdoulaye Daouda jàllo ba ñu nekkee impôt et domaine dafa ko dàqoon daaw Daouda jàllo aussi moo tax ba Amadou Ba ñu jëlee ko ministre des finances yóbbu ko étrangère c'est le mour entre eux xam nga bëggante wuñu te ñu bañante ñoom ñaar. L'idée dire vraiment Amadou c'est une erreur man dama chaque fois que ne Macky Sall bu jëlul Amadou Ba day c'était le meilleur choix mais Nekete, yo Amadou Ba bombe la c'est l'option nucléaire Amadou il a beaucoup d'ennemis parce que nous, Macky Sall am armée ñom bañ mais gars yi sax ragaluñu tellement dañoo bañ Amadou Ba que dañoo dañoo décider sax né parce que tamit un poste juteux CDC ay milliards ngay gérer CDC Macky Sall du ko jox n'importe qui net rek la ko jox rakam la ko jox Aliou Sall caisse de dépôt et consignation ay milliards fa nek ba mu paré Aliou Sall ñepp né dafa sacc mu jëlé fa Aliou Sall ba mu paré ci Aliou Sall mu jël mu jox ko ah, Cheikh Ba bu Medina Benen neddo mu paré ci Benen neddo jël ko jox ko mais Mamboy Diaw mu Mamboy Je suis dafa xol bopam, xol suis man je suis jeune je suis présidentiable jantal suis amn'a ay nit comprendre nga Té Mamboy Diaw dafa yag chantage Macky Sall parce que Mamboy Diaw bo je ñu ko CDC ci ci campagne euh, euh, euh, électorale Je dafa Euh, euh, élection yu mujj passé am na lu mu ndaroon def dafa ndaroon imposer boppam xaw ma ci ci ci ci maire yi Macky Sall daf ko mujj woo neexal ko dafa ndaroon bàyyi Macky neexal ko ci lañ ko jox CDC moo tax nag mu ñëwaat mu ne day defaat chantage mais moom xamoon na ne lii yëpp mënoon nañ ko si fekk xamoon na ne dinañ ko dàq wala dafa ndaroon sax démissionné avant muy démissionné Macky Sall dàq ko mais Mame Boye Diao guerrier la vraiment guerrier la te moom bañul Sonko mook Sonko ay ay jeunes lañu te am na lu muy demee tey bu bàyyee Macky Sall mën na jéem a jéem a ànd ak Sonko mais loolu yëpp ay piège la benn bokk yaakaar lépp lu muy def ñun il faut ñu def très attention xamuñu ndax Macky Sall mooy mooy mooy def lii yëpp mais lii nduruwul complot lii moom mer dëgg la waaw bu ki njëkk a mooy euh, kan la ñuy wax ne mooy démissionné Aliou Ndiaye Aliou Ndiaye ba mu démissionné dama ne woon xëy na lii benn genre show la waaye nag bu ñu gisee Aliou Ndiaye démissionné ñu toog gis. Mame Boye Diao nous ñu gis Abdoulaye Daoud Diallo ñu wo ko ne ko ka ñu jox premier ministre mu bañ da fay une fissure n'est-ce pas très euh, profonde hein, très marquée dans Ben Boko et ces jeunes là ils vont faire ces ces démissions là ça va faire tache d'huile n'est-ce pas il va ça va faire des émules dina am ñeneen ñu ragalon, dañuy am fit daal di génn mam booy jaawo gis nga war naa leen ay booy dèjà lu gaaw gaaw génn nañu commencé xeex te mam booy jaawo Macky Sall mënul ko dara parce que Macky Sall ñii ñëpp dañu am ay secret yoo xam ne dañ ko xam ci affaire Sonko bu ñu meree ba mer bu ñu jógee ne dañuy yàqal Amadou Ba Amadou Ba yàqu na Amadou Ba mënul falu tànk ñii ñëpp nefuñu euh, benn bloc te lii li tax mu baax mooy dafa baax ci Sonko parce que instant yi Macky dafa yaakaaroon ne il a réglé tous les problèmes kon leen rek ko déssé na jublu ci Sonko je vais éliminer Sonko mais fim nek nekk Macky Sall dina bàyyi Sonko mu nooyi touti waaw parce que talatul Sonko Macky Sall instant dina dem li bu continuer Macky Sall day am benen problème problème bi muy am moy balaa ngay djema a liquider Sonko nan da nga koy Maroc parce que Sonko dafa mel ne ci tank yo len djem Sonko dafa mel ne dañ koy bëgg yóbbu exil médical tay amna benen opposant médi euh, euh, nigérien bu ñibbi si Niger parce que dañ ko defoon exil médical Sonko xam naa Macky Sall ci tànk yooyu la nekk boo gisee Clédor di wax naan Macky Sall day waaja a bàyyi Sonko Sonko dafay libre makki Sall xam naa ci tànku jël Sonko yóbbu ko Qatar wala fenn ne dafay faju par force loolu la makki def mais Macky fi mu nekk nii il a d'autres a à am na lu ko doy sëkk parce que tamit jaaxaloon na ma nga nommé ab Amadou Ba ci saa si nga convoqué Abdoulaye Daouda Diallo.

parce que Mame Boye Diao au dernier moment lañ ko boole ci mbir mi yéen a ngi fàtte cinq la woon cinq lañ jëloon euh, Amadou Ba la jëloon euh, Abdoulaye Diouf Sarr Aly Ngouille Ndiaye euh, Boun Abdallah ak Abdoulaye Daouda Diallo voilà cinq xam ngeen cinq yi may wax ñooñu la woon ak Amadou Ba mais ñu dem ba ci biir Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr def benn xeex doon jéem a seen militants yi di xeex ci permanence ba ki mer daal di ci dugal Mamboy Diaw waaye màkke bu yëgoon bu ci dugal Mamboy Diaw lan moo tax mu dugal ci Mamboy Diaw xam naa Mamboy Diaw dafa yàgg wax Macky ne vraiment lu tax mu boole woo ma ci métti na ma. bu leen fàtte ne Mansour Faye aussi goro Macky sàll àndul ci lii Marème fay boo demee mi ngi jaxase ci suuf est-ce que du moom moo wax Abdoulaye Daouda Diallo bañal ana Aliou Sall bokkut déggutuñ ko ci dara dafa mel ne Marème Faye moo ko écarté Aliou Sall ancien maire de Marème fay dafa mel ni moo contrôlé lépp Mansour fay nag bu gisee lii yëpp yii yi yëpp am moom tamit mën na mën na ne moom it day jéem a nekk candidat <coughs> attention mais gëmuma ko Macky Sall Macky Mansour Faye gëmuma dina dem naan day jéem a ut day nekk candidat parce que boobaa vraiment day yàqal Amadou Ba te Amadou Ba dina xam ne dañ koy saboté léegi Mame Boye Diao est-ce que dina ko Macky Sall dina ko bàyyi mu am parrainage Macky Sall bu ko bàyyiwul mu am parrainage Mame Boye Diao mën na mer commencé jalgati di wax ay ay secret mën na yàqal Macky Sall fi mu nekk Macky Sall il a un sérieux problème lii nag mooy problème mu makki parce que moom moom xamul fu muy teg tànkam bu jugee toog ak Abdoulaye Daouda Diallo li tax Abdoulaye Daouda Diallo mer parce que yaakaaram dafa tas kii ne na Aliou Sall dinañ wax si kay soof tuuti aussi kay soof dañ ko dañ ko euh, mettre en garde à vue parce que li ma doon ragal démb moo am non seulement Doudou Ka daf ko porte plainte mais aussi pour hôtel bi daf ko porte plainte d'après après sénégal la lire source bi ñu ne hôtel bi daf ko porte plainte qui porte plainte pour menace xawma lan ak du xamul ak aussi menace de destruction des intérêts français contre kayis attention mën na am problème bu otul avocat bu baax mën na am problème parce que non seulement dañu wax né dafa menacer euh, euh, sur son intégrité physique manam dina ko dóor dina ko def li dina ko def la mais aussi dafa dañoo menacer ne dañuy yàq ay intérêt français xam nga Kayz est libéré merci d' accord c' est bien mais dañ ko libéré ça ne veut pas dire que cas bi dafa jeex parce que wax naa leen France du Sénégal nee naa leen France du ñu ñëw rek jàpp la tëj la ne la instruction six mois bu ñu la def garde garde à vue bu garde à vue bi jeex dañ lay bàyyi nga ñibbi mais nag dañuy topp dossier bi parce que plainte la est-ce que problème Kayz dina ci dina ci am problème wala du ci am problème lolu. l'histoire nous le dira mais balaa ñuy wax ci Kayz foofu comme il est libéré alhamdulilah nañu delu si la crise la crise au sein de Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar tey aussi gis nañu Antoine diom dafa mel moy président xosanto bi nga xamne dafa am ñaari xale yuy faray parce que xalé yi lii ñuy jaajëf Seigneur Damas depuis Damas Rabat j'espère que yéen a ngi ci euh, depuis depuis Rabat Maroc yéen a ngi si jàmm parce que tremblement de terre dégg naa parce que am na 3000 morts j'espère que Sénégal yu bëri ñu fa aussi comprendre nga waaw léegi Antoine diop dafa mel ne mooy président lu am rek moom mooy jug daal di déplacé wu Xosanto dañ fa rey ñaari xale Antoine diop jël na avion dem na fa waaye ci diggante ba gis nga Dakar gi tàkk parce que booy ñu ngi xeex booy Mambo Diaw yi ñu ngi xeex ak yeneen booy Sonko yi ñu ngi ñu ngi doon xeex waaw léegi lan lay wane que ne ñoom dañu yaakaar ne Sonko rek mooy xeex xosanto euh, or bi fa nekk ak euh, miin yi fa nekk ñu bëgg ñi fa dëkk au ñu liggéey fa ñu bëgg leen dindi jël ay neddo wala jël yeneen nit yóbbu leen fa pour ñoom seen i doom ñu ñu ñu ñu fay liggéey gars yi nag na du ci dal bu jaree ñu jox seen bakkan ñu joxe seen bakkan le maire même maire foofu xam naa ba maire patriote lay doon dafa xeex ba rakkam xaw ma magam ñu rey ko ci moom am na nu muy demee ñu jàpp ko dégg naa jàpp nañ fa ñu bëri jàpp nañ fu bëri mais ñoom dañu war a comprendre ne jeunesse bi du Sonko kese moo tax ñuy xeex jeunesse bi dañoo désespéré te bu jaree ñu xeex dañuy xeex Pape Alé Niang génn na benn texte tey di wax célébrité yi mbër yeeg footballeur yeeg ah, activistes yi il faut que ñu jël seen i risque ñu jéem a xeex li fi am mais loolu Pape Alé day sonal boppam loolu pour mu am dina metti mais loolu lenn mën na ko indi bu dee benn mbokk yaakaar dafa tas continuer tas Amadou Ba moom lii dafa wane ne moom amna problème il n'est pas populaire mom de xawma lan la def gaay xamna nak naa li ñu li ko jiiñ ne guinéen la man dal xawma lan la def gaay mais Amadou Ba il a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'ennemis gaay yi wuñ ko parce que tamit dañ ne c'est pas un candidat authentique amna ko ko fi waxoon yéen nga rappeler c'est pas un APR authentique lolou ki moko ko fi jëkkoon wax euh, Kirikou waxul Amadou Ba mais dafa ne dafa ne euh, ñoom bëgguñu candidat euh, bo xamné il n'est pas authentique

li il faut que nous def live parce que tamit même jour Macky Sall convoqué Abdoulaye Daouda même jour Macky Sall convoqué Boun Abdallah ah même jour euh, Mamboy Diao daal jël def annonce mom xaru sax dafa def annonce conférence de presse la def mu té da doon critiquer politique Macky Sall parce que mi wax agriculture beeg mbay mi dafa wara a mel nii dafa wara a mel di critiquer ah Sénégal émergent pour wone né Macky Sall vraiment liggéeyul parce que ku guen nga bok ci groupe euh, Macky Sall dem len ngeen deglu mam boy diaw def na émission ben ben 40 minutes muy wax mais man li ci jot deglu commencement bi bëri mi nga nan mbay mi il faut que mu melni sam bi il faut que mu melni di jox ay solution donc 12 ans fi Macky Sall def dafa bëgg wax ne Macky Sall dafa gàtt way gars la da ngeen di laaj da ngeen di gëna partager hein ah, pour nous maintenir dans la pauvreté déedéet déedéet déedéet du loolu loolu dëgg la mais yàlla moo ko seetaanul àqu Sonko moo leen dal parce que Sonko waxoon na ko France 24 Macky Sall dafa am problème candidat te man dama yaakaaroon ne bu bu bu jëluloon Amadou day mer mais Macky def na xëy na bu sañoon <laughs> xam naa Macky mi ngi naan man de bu ma yëgoon mais Macky bu jëluloon Amadou Ba c'est problème kan lay jël kan lay jël loolu mooy problème bi parce que Abdoulaye Daouda Diallo. moom au moins Amadou Ba moo ko ëpp euh, bagage quoi comprendre nga Mame Boye Diao xale la Macky mënu ko jël waaw xanaa lenn bu jëloon Boun Abdallah peut-être dina tane mais bu jëlee Boun Abdallah wala Aliou Ngouille Ndiaye non Aliou Ngouille Ndiaye sax pour man ministre de l'intérieur la mais amul poigne quoi Boun Abdallah moo doon candidat boo xam ne vraiment moom premier ministre la woon moom bu ko jëloon xam nga du nekk affaire u neddo du nekk lii mais nag. bu boobaa gars yi dañuy mer ñoom Abdoulaye Daouda Diallo neddo yi Farba Ngom dañuy mer mais ana kooku ana Farba Ngom Farba Ngom est-ce que ànd na ci ci Amadou Ba nekk président je ne sais pas mais Farba Ngom kenn déggut ko ci dara parce que Farba day làqatu parce que pour moom Sonko rek moo doon problème am Farba moom dafa yaakaaroon ne bu ñu reyee bu ñu reyee Sonko wala ñu tëj Sonko rek yëf yi yëpp baax na xam nga ana Farba Ngom kii nee na ma il est au Canada xanaa dafa feebar. wala dafa bëgg ñu fàtte ko ndax bi duñ la de euh, comprendre mais c'est une bonne nouvelle xam lan la ñu a ñaan nañu ñaan yàlla affaire bi continuer bu mais mais mais ñëpp xam nañ Macky Sall dafa a Macky nu muy euh, mais mais bambou diaw mi faalewul xaalis waaw milliardaire la ba euh, est-ce que Macky def leen di menacer yaakaaruma ko Mame Boye Diao du nit ku ragal Macky Sall mënuloo tëj Mame Boye Diao mënuloo rey Mame Boye Diao ba Farba Ngom soutien Amadou Ba ok ne ok Mame Boye Diao munuloo mënuloo ko rey Boun Abdallah munuloo ko rey euh, mënoo rey ñëpp mënoo rey ñëpp parce que boo boo la ndooyee dañuy commencé wax Macky daal li ñu mën a wax daal mooy il un sérieux sérieux problème kii nee na Farba sa gauche sa cache dans son demi-cercle parce que ñoom ay Farba Ngom yi Sonko moo doon seen problème ñoom dañu yaakaar ne bu ñu xasee éliminer sonkoo rek léegi lépp nice léegi nag dañoo bëgg noppi parce que li ñuy bañ mooy jeunes yi fekk leen seen kër taal seen kër yi wala ñu attaque leen parce que yéen def lii Sonko wala yéen def lii wala yéen def lii sànq Sonko lii nag ban insidence la am si Sonko incidence bi mu am ci Sonko mooy nañ sant yàlla ndax comme ni leen ko waxee Macky Sall man li ma yaakaar. si Tankou génne Sonko ci réew la nek Macky Sall ci tànk génne Sonko ci réew la nek lolou man Mister Shake may leen ma ay kër may ma ay kër may ma ay kër man ma fi njëkk wax bañu jappé Sonko ci même jour bi la bind mané Sonko Macky Sall daf ko bëgg yobbu mar parce que dafa am fu mu ko liiroon ñëpp di wax non non du dem du dem du dem may ma ay kër may ma ay kër li ma leen wax ni bayi leen ci xel man dama japp ne Macky Sall instant bi ci Sonko ci mi le parce que Macky munul Sonko parce que fu mu dem ñu koy sonkoriser tay stade bi Sénégal dafa l'Algérie. Algérie mais comme dañoo bañ Sonko nañ la lan la def billet 150000 francs lay jar ngeen gis stade billet dégg naa bi yi dafa cher cher cher cher cher ba booy du ñu mën a dugg seetaan match bi même bu dee dix mille xam nga ne booy amuñu dix mille franc nan dañuy dem seetaan match bi loolu mooy seen solution pour estade bi bañ a sonko bañ ñu sonkoriser ko dañuy nar a jël seen nit seen i nit lañ leen jar a jël def seeni i ba mu fees ay nitu APR yóbbu leen ci benn stade contrôler leen ne leen jox leen ay yére Macky Sall sol leen mais bi boo yi nga xam ne tey bi ñu defoon billet bi deux mille wala trois mil booy dugg ah booy dugg euh, euh, euh, duñ ko def non loo am na benn bu ma seetaan mam booy jaaw ñu jaay Macky Sall électricité am na beneen vidéo bu ma seetaan boo xam ne montage la ñu ne stade bi mi ngi toj déedéet loolu montage la loolu du du du du eh, match bi dafa naa commencé gul woon sax comprendre dañoo bañ ñu sonkoriser stade bi Sénégal Algérie ñu jël billet yi ñu cher loo ko.

Facebook waaw dinaa ko xool match bi tey la woon de defe naa defe naa tey la tey la lan est ce que match bi tey la match bi tey la match mardi ah jaaxal na ma lu tax ñu def match bi mardi mais en tout cas loolu ñu def ko ñu bañ ko def Macky Sall xam na ne Macky Sall xam na ne Sonko moo fi ne te bu jëlee Sonko yóbbu ko ah tey 19h ak bu jëlee Sonko mu yóbbu ko euh, nu mu tuddati. bu jëlee Sonko mu yóbbu ko euh, sëbi xotaan xale yi dañuy gën a bàyyi xel Sonko moom ñam moom nag yaakaar na ne bu ñu jëlee Ousmane Sonko ñu yóbbu ko Maroc mais mënatuñ ko yóbbu Maroc ndax tremblement de terre mais Qatar lañ ko nar a yóbbu Qatar lañu bëgg yóbbu Ousmane Sonko dañoo bëgg nag wax ne Sonko nangu na ci négociation yooyu lañ nekk. motax Clédor génn di ñu wax né fan yi Sonko dina génn fanny yi Sonko dina génn il va être libre il va être candidat def leen très attention euh, Clédor kenn wóolatu ko à cent pour cent Clédor man mënu ma wax fan la fa mënutuma leen wax lan la sonkorisation du stade ok d'accord accord bu dee sonkorisé nañu stade bi lolu jarul sax ñu ci focus instant bi ki naan ma bul wax ci candidat benn Bokk Yaakaar dañ ci wax parce que benn Bokk Yaakaar dafa waaj a tas Abdoulaye Daouda Diallo buggul Mame Boye Diao buggul buggul euh, Amadou Ba Amadou Ba woo na ko mais xam naa ne bu ko woowee tamit day saaral rek waaye Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo daf ko bañ dañoo bañante ñoom ñaar ce sont des ennemis jurés waaw waaw candidat de euh, euh, Macky fi mu nekk il a un problème léegi nag bu ndaroon génnee Sonko dootu ko def bu yóbbu Sonko Qatar ak lii am nii Sonko gis ne nous bokk yaakaar ça, tass Sonko bu négocier sax nous négocier ñun du ñu jël Ousmane Sonko diko Sonko du ne sortira pas du pays bu ci Sonko rek Sonko du nangu mais mën ko mu nelaw ñu duggal ko ci par force génne ko réew mi wax ni bu yobo ngeen def très attention Macky Sall ci Sonko ci Sonko lu ñuy ñoo war a Pastef ñoo wara am xel les cadres de Pastef ñoo wara am xel ñu préparé wu ñuy communiquer ñu ñuy wax ci Ousmane Sonko mais ñun on ne nous dit rien sur Sonko Sonko dañuy dem sa ba commencé ko fàtte man m'a ngi nekk sama live chaque jour di wax ci Sonko Sonko sa ñu yeewoo tey waron nañu wax Adama Fall de perte démission nee la dina bëri nee la affaire bi dina am ay conséquences waaw affaire bi dina am ay conséquences. parce que fu mu nekk mbuucaa mbuuci nga xam ne dañoo ragaloon wax bu ñu gisee Mame Boye Diao bàyyi ñu gis Abdoulaye Daouda bàyyi ñu gis euh, euh, Boun Abdallah bàyyi dinañu bàyyi ñu bëri di ma kii nee na Moustapha Diop war a dit que ak Mame Boye Diao et c'est vrai loolu gëmmuma ko du dëgg du dëgg Mame Boye Diao Mame Boye Diao ah mooy voilà voilà mooy comme li leen waxoon rek comme li leen waxoon li mu leen waxoon rek mooy li am que ne Amadou Ba Macky Sall bu ko jëlee du ko jàppale xam nga waxoon naa la ko waxoon naa la ko démb démb xam nga bërki démb ma ne leen lenn lenn mën na ne Amadou Ba moom Macky Sall du ko du ko jël à cent pour cent Macky da koy jël mais day bàyyi yeneen gaa yi ñu bokk ku mel ne Mame Boye Diao mën nañ ko bàyyi mu bokk loolu tam mën na ne mën nañ bàyyi baam Boye Diao mu bokk ñu bàyyi yu euh, Ngouille jaay bokk comme sa Amadou Ba Macky Sall mom lay campagne c'est vrai waye bugg ko jox doole bi yëpp comme ça Amadou Ba bu amé 30 ah ñu satchal ko mom 30 pour cent Mame mën na am 8 Abdoulaye dadou Diallo am 2 wala 3 comme ça Amadou Ba dal lay bañ mu am doole ba yaakaar na mom rek mo fi né lool tam mën na né waaw mais man tamit man tamit gaay mënuma né euh euh euh euh mënuma wax né Mame Boye Diao Euh, est-ce que merul parce que même boy dafa am caractère tamit waaw Clédor su su sous-marin la mag Clédor Fall Clédor Seck su Clédor man wolotumako parce que tok nak mam euh mu tuddati Abdou Karim ko xam xurum xaar Abdou Karim ne ko man grand xàmmeetuma la billahi wallahi taala tok nañu débat mu ne ko grand man xàmmeetuma la Clédor yow yaay waxee wax yi ngay wax xàmmeetuma la mais Clédor mo fi waxone Ousmane Sonko ne démobilisé deuxième vague bi avant muy am dafa ne Ousmane Sonko bu mu ñëw bu mu ñëw dakaar naan day xeex te deuxième vague bi tey moo ñu indil lu bëri moo tax Macky Sall bàyyi troisième mandat moo tax Macky Sall bàyyi troisième mandat kii ne na mister bàyyi bàyyi ñu kalis wala ah am na ku fi bind ñu ne Kayz est libéré de waaw kay Mambali loolu tam mën na ne Mame Boye Diao mën na am Macky Sall moo ne ko euh, kiiwal démissionnel ma dàq la mu mel ne dama laa dàq xam nga tamit ñoom seen affaire dafa salte seen affaire dafa salte mun nañ ne koo wax ne xam nga dèjà lu gaaw gaaw maa ngi tagg Mame Boye Diao naan géeree la petit a xëy na loolu lañ ci jublu ñëwal sóob ma dàq la ah comme ça gars yi ne yee nga comme ça doo ànd ak Amadou Ba parce que ñoom it wóoluwuñu Amadou Ba Macky Sall mënul wax ne ñëpp ànd ak Amadou Ba loolu risque la tey bu ñëpp ànd ak Amadou Ba Amadou Ba day dem ba ëpp doole Macky Sall comprendre Macky Sall loolu lay ragal. motax tax da dafay dafay diviser pour mieux régner lolou mën na ne mais aussi gars yi mënuñu mënuñu wax rek lepp lu am rek ñu ne ñu ne euh, euh, euh, parce que tamit Macky mënul contrôler lepp Macky mënul contrôler man je pense qu'il y a sérieusement une crise man man li ma jàpp il y a une crise mamboy diaw mi ma gis gëmuma ne Macky Sall daf ko yoni man dama japp né mamboy il a une grosse tête boko xolé il est présidentiable boy la jantal la am na xaalis ilaa eh, xam nga dafa dafa wolu bopam xam nga man loolu la gis man dama gis ne li li, man bu Mame Boye bi bi yaakaaruma ne dil la ak makki yaakaaruma mako man dal a 5 60% pour cent à soixante man dama japp que ne mambo jawo dafa jël responsabilité parce que li li tax mu doy waar dafa genn mu def mu def conférence de presse mu déclarer candidature li ci doy aussi mooy dafa dafa dañ ko dàq ci saa si loolu tamit dafa doy mais affaire yi dina leer xam nga kañ lay leer parenage bu dee Macky Sall daf ko bàyyi mu am parrainage facilement kon nga xam ne deal la peut-être ak Macky mais bu Macky rëqee ndigam ci parenage yi kon ngeen xam ne du deal est-ce que comprendre parce que Macky bu buggul nga bokk da xañ parenage Mame Mbaye Dia fan lay jëlee parrainage bu dee Macky bëggul mu bokk fan lay jëlee parrainage kon foofu la ñuy xamee ndax diil la wala du diil li ci kanam rawali bët mais de toute façon li tax man ma ne la du diil lu tax ma ne la du diil Macky Sall li ko arrangé woon mooy ñëpp nekk uni autour de Amadou Ba. gars yi Moustapha mu ngi def analyse mais ma Mister Shake vraiment analyse bi may def mooy man je ne que c'est un deal je ne pense xam nga lan laa jàpp xam man lan laa jàpp dama jàpp ne c'est une crise Je nga lu tax c'est une crise xool leen Macky Sall mu toog deux mois prendre jël décision lii la doon bañ Macky Sall lii la doon bañ moo tax mu jël deux mois prendre jël décision cette décision bi dafa bête Abdoulaye Daoud Diallo parce que Abdoulaye Daouda Diallo bu ñuy woo pale ci saa si ne la kaay nekk premier ministre Amadou Ba nga bañ ça veut dire moom dañ dañ ko dañ ko joxoon ay assurance depuis longtemps depuis très longtemps parce que Macky moom bu lay préparé noonu la lay préparé deux ans trois ans la lay préparé dafa ak yow plan nga yow nga def ko sa bopp ne man maay nekk président au dernier moment mu xañ la ko looloo métti Abdoulaye Daouda Diallo nan la la Macky Sall ba pale ne la yaay nekk premier ministre nga bañ parce que yow président nga gis parce que bañ lay dàq ministre def la yóbbu la pale dañ la joxoon ay assurance bu leen fàtte ne Abdoulaye Daouda daal dañ ko wàcce dafa naa doo dootul ministre ah ministre des finances la woon dañ ko wàcce après yóbbu ko palais mu nekk xaw ma lan la fa nekk directeur de cabinet la xaw ma lan la nekk Macky Sall loolu yëpp Macky da koy dig gaawul toogal sama wet dinaa def lii dinaa def laa Macky Sall nag dafa jël temps mais au dernier moment mu joxe décision am décision bi nag bett Aliou Ngouille Ndiaye Aliou Ndiaye démissionné parce que moom it xam naa dañ ko yàgg dikk dañ ko parce que ministre de l'intérieur intérieur la woon mu def du sale boulot pour Macky Sall Aliou Ndiaye ministre de l'intérieur, intérieur def sale boulot Macky Sall Macky Sall jël ko rangé ko dikk ko John premier ministre la woon Macky Sall kaa toroxal John Macky da kaa toroxal parce que daf kaa fay moom ñeneen ñi sax def na le ministre fi mais John mom dañ ko jël rek neub ko jant bi mom kenn xamatul fu mu nekk ñu woowaat ko. buy dundee yaakaar ñu tas yaakaaram te ñooñu ñëpp dafa am ay nit ci suuf gis nga Adama Fall li tax mu démissionné boo demee Abdoulaye Daouda jàll moo la àndal wala mu ànd ak Mame Boye Diao di ngeen gis ñeneen ñu bàyyi lii nag moo tax ma ne la du deal c'est pour man c'est pas c'est pas une c'est pas un deal c'est pas un leurre c'est une crise pour Macky Sall parce que am lu tax mu mën a la c'est dangereux parce que bu dee Macky Sall day moo ko tey il jour avec le feu il joue avec le peuple bu ne yaa maam Boy Diawo bayil. Khassal Amadou Ba nga ne Abdoulaye Diawo xasal Amadou Ba da ngay encourager militant APR yi ñu commencer di dal Amadouba. Ba léegi nan ngay campagne le ko xam il n'est pas populaire c'est li c'est une crise pour Macky Sall te Sonko na ci sante Yalla. Sonko na ci sante Yalla parce que Macky Sall munoo am crise au niveau de l'APR ba paré nga jël ngay jël Ousmane Sonko daal di ko génne kii ne ga yaakaarloo Mister Shake di deal la nduru nee du deal c'est pas un deal c'est une crise gis nga Adama fa rejoint Mamboy Diaw non lay demee nee naa dañu am ay nit gis nga Mamboy Diaw day am ay nit yu ndaw nit yu ndaw yi fi la commencé jëngu léegi nga dégg këru ku mel ne këru ku mën na mën na ah, parce que amru ki mën ko woo keneen mën ko woo Abdoulaye Daouda parce que ñi ñep ay milliardaires lañu ana Mame dégguñu Niang dégguñu ko tan yii dafa mel dama dégg ñu né démissionné né kon xone ne pas vrai. Rien de démission c'est pas vrai mais li pas c'est c'est c'est une crise moyenne, ça va faire des émules ça va faire tache d'huile t'es ça amenuise ça euh, euh, euh, les pouvoirs de Macky Sall ça diminue l'autorité de Macky Sall te Macky Sall problème bi moins, il n'est plus président de la République à partir de 2024 donc s'il voit son autorité s'amenuiser euh, lui échapper lolo c'est très dangereux à cinq mois des élections nit ñi wan ko de toute façon yow maké yow jéxal nga ah yow de toute façon jéxal nga kon amuloo loo fiy décider amuloo loo fiy décider ba pare Amadou Ba nga bëgg jël teg ko fi ñun duñ ko nangu Amadou Ba il est vraiment impopulaire Macky Sall vient de réaliser que Amadou Ba c'était c'était pas peut-être le meilleur choix mais Macky comme ni ko Sonko il avait toujours un problème le problème c'est il n'a pas de candidat parce que tey Amadou Ba c'était le mal nécessaire ouais on se rend compte que c'était un mal très très très très euh, profond mais c'était le mal nécessaire mais bu dul woon Amadou Ba kan lay doon Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba moo tane ndax Abdoulaye Daouda Diallo le ministre des finances là rek communiqué. communiquer est-ce que vous fenn Mame Boye Diao comme nous l'avons la jeune Boun Abdallah Macky Sall dafa ko daf ko mettre au ñu fële aux oubliettes pendant longtemps kenn xamatul kan mooy Boun Abdallah amul benn personne am na personnalité mais amatuloon bagage pendant trois ans quatre ans nga jël ko mu nekk en hibernation nga jékki-jékki bu ko génn dafa sedd voilà Boun Abdallah dafa dem ba sedd guy Abdoulaye Diouf Sarr ku mënul gañ yoof nga bëgg ko tabb candidat présidentiel du sotti kan moo ci des keneen. wax naa Abdoulaye Daouda Diallo wax naa Boun Abdallah wax naa euh, euh, Abdoulaye Diouf Sarr Aly Ngouille Ndiaye même chose ah même chose ministre de l'intérieur la mais moom tamit il a été oublié nan nga jële nit jox ko poste bu am importance ministre de l'intérieur nga jëlee ko fa dàq ko danga nga ko dàqoon législative yi mu gagné Linguère nga indiwaat ko def ko ministre mais ban ministre ministre de l'agriculture kooku tamit dafa dem ba sedd ki ci gënoon tàng mooy Amadou Ba mais Amadou Ba son problème c' est que comme ni nga ko waxee c' est pas un APR authentique <laughs> comme ni ko euh, kii waxee kiiru du APR authentique du du du ñi nga xam ne ñoom bu fi Macky Sall amee problème moom Ablaye Wade la àndaloon temps yooyu parce que Ablaye Wade di dàq moom directeur de domaines ab Wade loolu gars yi loolu lañ koy xoolee Amadou Ba il s' est fait beaucoup d' parce que Amadou Ba. dañ ne doon Sonko ci affaire 94 milliards mom moko wax Sonko xam ba ba ba Sonko problème Mamour Diallo euh, affaire Prodac bi Amadou Ba est-ce que may euh, Amadou Ba euh, Pastef temps inspecteur des impôts Pastef yu bëri mom de responsabilité ils n'ont pas confiance en lui c'est un milliardaire et puis il connaît beaucoup de choses mais Macky Sall problème bi mu am mooy Amadou Ba am na fu Nous, ko liir Amadou Ba ñi koy euh, euh, euh, France ñoo ko jàppale ak yenn yenn institution internationale ñoom ñoo bëgg Macky Sall parce que Macron dafa naan ko Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba comprendre pression internationale c'est fi gën a bàyyi Amadou Ba waaw mais vraiment tey ak xaw. man damay musa wax ne Amadou Ba bu jël Amadou Ba wa léegi bu jël Amadou Ba lan moy am Amadou Ba mom kese mom kese dafa xam ay secret est-ce que mënon na yak mak Macky Sall mënon na yakal Macky Sall lu bari Macky apparemment oui apparemment oui li tax Sall ragal Amadou Ba bam mu ñemewu koon dàq même bam koy dak ministre des finances daf ko jox poste bu jité lako jox. moom dafa wouté ñom Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah ndax ndax mom ba mu nekk ministre des finances dafa dem à l'étranger mu indil Macky Sall ay milliards yéen nga sept mille milliards la dem négocier sur le plan international donc il a des contacts sur le plan international sept mille milliards le, le, le, le, le, le indil Macky Sall Macky Sall ba finances, koy finance il fallait que mu joxat ko benen poste ban poste lako jox étrangère, ministère des affaires étrangères Amadou Ba il en a profité pour tisser des relations avec euh, l'Europe avec le monde loolu tam dafa gën renforcer bagage il connaît beaucoup de choses dafa xamal dafa xam régime Ablaye Wad, xam fa lu bëri il a des relations avec Sonko ba yaayam Sonko Demna na jaale ji etc., etc, cetera et tax gars yi wóoluwuñ ko mais bu Amadou Ba Amadou Ba leen moo doon problème Amadou Ba dafa am des des des des dafa mës a am ay ambition présidentielle ma defaraatal leen révélation ma defaraatal leen révélation man Mister Shake toog naa ak frère Amadou Ba bu ñuy wax Abbas Ba ma fekk fa ay guinéen man Mister Shake yàlla nee naa leen daf maa boole sama chiffre banco 44 daf maa boole ci euh, histoire Sénégal ndax Amadou Ba yalla mo def man musuma def politique mais yalla mo def ben mbokam mo ne ma kay nga jappalé Amadou Ba 2017 ci campagne pour euh mu tuddati législative ben mbok halpularam buma ma ben cantine HLM 5 xam nga kooku mo gis ne ma vraiment. ni ma doon wooye clients yi ak sama chaîne am musique animation business mu gën a yokk mu ne ma yow tu communique bien ñëwal nga jàppale Amadou Ba ma ne ko déedéet une semaine après ma d'accord parce que dafa ne ma sa koñ mën na ci mën ngeen ci am ay liggéey affaire yooyu noonu laa demee mu boole ma ak frère Amadou Ba Abbas Ba jour bi may njëkk seeti Abbas Ba benn guddi la je me rappelle ba ma duggee fekk naa fa ay guinéen duma leen wax nag li ma fa dégg yëpp parce que tamit doo liggéey nit. mu wóolu la parce que mënoon na ma Mister Shake génnal ba ma pare Guinée yi ngay doog a wax mais damaa toog ma déglu Guinée yi ñuy wax wolof seen wolof sax leerul mu laaj leen xale yi tontu ko ci laa ne kon kii Amadou Ba dafa am réseau Amadou Ba dafa am réseau dafa am ay parcelles dafa man am na fa ay militants mais aussi dafa am ay Guinéens yoo xam ne dañuy liggéey ak moom Amadou Ba bu leen fàtte 2017 boobu. moo doon directeur campagne Macky Sall pour Dakar ci laa ko jàppale suñu koñ Macky musu ko gagné mais man dama ci dugal def ci sama 2 millions ñu ne ma def ci sa xaalis dina la rembourser ma def caravane def euh, meeting HLM ba ñu gañeel ko 1000 voix Macky Sall pour la première fois ñu gañeel ko 1000 voix pour vous dire 2017 la won mais 2022 bi passé Sonko mo gagné HLM 1000 voix. gis nga donc Sonko dafa renverser tendance man fekkee naa loolu kon Amadou Ba buñ ko jiiñ mom mom guinéen la xaw ma ndax deug la du deug am ñu né huitième dafa changer de lieu de naissance xam nga xam nga légui li lan lan motax tax mu am importance tax may insister ci affaire guiné bi ça veut dire que Macky Sall dafa amel bor Amadou Ba ndax Amadou Ba 2017 moko ko élection yi te bu leen fàtte élection yooyu dañ ne Macky da kaa sàcc bien que man HLM moom man gis naa résultat yi ñoo gagné mais Macky gañewul fépp di Dakar te de Amadou Ba dafa bàyyi ba deux ba minuit xaw ma une heure matin ci la génn mu joxe résultat yi mu ne on a gagné est ce que yéen a ngi rappelé ñoom Sonko war a xeex Idrissa Seck ne garaawul xaw ma dafa naa noonu la mujjee. ba Sonko bàyyi mu sedd mais dañu ndoroon xeex mais Idriss Seck moo trahir kon Amadou Ba dafa xeexal Macky Sall makki Sall ko ameel bor foofu est-ce que yéen a ngi rappelé yéen ngi rappelé loolu léegi nan la def ba Macky Sall nan la def ba gagné trois heures du matin la woon waaw kay merci loolu yëpp dafa Amadou Ba daf ko liggéeyal Macky Macky du fàtte xam nga te Amadou Ba guinéen yooyu guinéen yooyu man am naa lu ma dégg yéen nag xel. junju jonne borom xel man fekk na fa ay guinéen duñu ay sénégalais de ay guinéen lañu mais Amadou Ba mom ci la xamné ne dafa am ay ambition présidentielle parce que mi ngi naan suma bëggé nek président il faut que mu am ben électorat ben base tok nak Mamour Diallo lolou mom wax naa ko Mamour Diallo mané ko Mamour sama xarit nga Amadou Ba mu ne ma non comme yow Amadou Ba nga bëgg liggéeyal. Amadou Ba sama frère demal nga liggéey ak mom ma ko Mamour yow sam ño bokon classe sama xarit nga patati patata Amadou Ba daf ma trahir frère Amadou Ba Abbas daf ma trahir dañu lek sama 2 millions ne dinañ ma rembourser ma liggéey len fayuñu ma non seulement fayuñu ma mais dañu lek sama xaalis man nak tan yoy wacc bes la xawmon li xawma sax Sonko xawmon ki Sonko 2016 la ma ñew temps yooyu ñëpp Macky Sall la ñuy wax Sénégal émergent jam ñaajo terre bi ah liggéey Macky yi ngi defar Ila Touba ma ne ah mais kii mi ngi jooba man loolu laa jàpp Macky il m'a roulé dans la farine comme yéen nu mu leen roulé dans la farine en 2012 ba ngeen di voté ba ngeen ba ngeen koy votel parce que man 2012 voté lu ma Macky Sall man Abdoulaye Wade laa faraloon 2012 comprendre que waaw léegi looloo taxoon ma jàppale ko ma ne ma ne Mamour mune Mamour dama non damal nga liguel Amadou Ba comme yow mom ngay liguel damal nga sama frère la man mënuma ko ma ne ko Mamour Mamour euh ne ko Mamour Diallo liggéeyuma mak Amadou Ba ci la ko jox révélation bi nak yow sama xarit nga motax mala koy wax Amadou Ba bi ma gis il a des ambitions présidentielles il a wax Mamour Diallo waaw yo bo ngeen bàyyi xel ma ko yow xawma nga am ambition xawma ambition mais Amadou Ba mi ma gis parce que li ma gis fële ay ay guinéen wax naa ko man gis naa fa ay guinéen loolu nag ma ne ko normalement li nga nekk sama xarit sax moo tax ma la koy wax mais man lii doo dégg ma wax ko feneen mais comme sama xarit nga te dañuy job te en plus ñoom ak liñ ma def mais yow wóolu naa la ma wax la loolu mais bu ko wax kenn loolu moom wax naa ko Mamour Diallo kon Amadou Ba il a un réseau de guinéens loolu moom foofu rek laa mën a yem junj jor na doy na borom xel Macky nag dafa xam loolu. Amadou Ba dafa am réseau et puis Amadou Ba c'est un milliardaire Amadou Ba c'est un milliardaire xanaa gisu leen pression yi mu teg Macky Sall pour Macky Sall tabb ko ay article commandiqué commandité web, Senego Hein? nit ñi di génn di def ay ci Facebook bi partout Amadou Ba dafa am doole de dafa pression Macky Sall dem ci permanence ba moom ak Diouf Sarr ñu créé fa benn boucan est-ce que yéen a ngi rappelé loolu yëpp Amadou Ba dafa jekku Macky Sall ci lu bëri wax ji wax ji loolu la gaay yi nañu sant yàlla il faut mo couper la vie parce que dama am mo ra a bu ci kanam gën leen la gën leen partager té ngeen dem sama euh, TikTok waa jooju xaw kan moma fay liggéeyal mais mi may defal liggéey bu am solo mi ngi may defal euh, euh, ay résumé yu bax lima bëgg nak mu dag dugal moy na dugal mu wax né Amadou Ba man fekké na ma toog ak frère am Abbas Ba parce que doon doon job fekk naa fa ay guinéen te Abbas Ba mooy ministre premier ministre Amadou Ba moo yoroon lépp Amadou Ba permanence Parcelles assani laa demoon foofu lañu tase dem naa ba kër Amadou Ba di di di <laughs> pour ñu delloo ma sama xaalis mais ñu ne ma beneen frère am ne ma ah comme yow Abbas nga wax ak beneen frère bi man sama yoon nekku ci ci laa bàyyi. kii nee na il a régularisé les Guinéens yaa man de ah en tout cas junj doy na borom xel man li ma fa jox te dégg mënuma ko répéter pour le moment parce que tamit góor-góor la munoo di liggéey nit mu am confiance xam nga mais loolu am naa droit ma ne fekk naa fa ay Guinéen te Guinéen ndimbal lañ doon ut si comprendre mais fii ndimbal ndimbal tamit xam nga ne Sénégal rokki mi rokaa lay doon. foofu laa mën a yem foofu laa mën a yem waaw xam leen loolu Amadou Ba moom il a un problème parce que gars yi déjà ñu ngi naan guinéen la ah euh, kay soof nee na Guinée la euh, Akhenaton nee na guinéen man au début sax dama ne waaye gars yi bu leen wax waxu ay waxu Guinée waaye ah mais nag je sais que nekk rek Akhenaton il a bien il a vu juste lii c'est une bonne formule pour attaquer ko est-ce que dëgg la dafa dem ci week mu changé ne moom juddoo juddoowul euh, Guinée loolu xaw ma ndax dëgg la wala dëgg mais booy xeex dangay xeex waaw gars yi bàyyi la ma coupé laaj bi parce que tamit euh, dama am comme ni ma ko waxee dama am euh, damay am réunion bu ci kaname mais li ma leen di wax rek mooy lii lii c'est une bonne nouvelle te yàlla na benn bokk yaakaar yàlla na gën a tas à la guerre comme à kay yàlla na gën a tas nit ñi gën a mer Macky Sall jaxasoo Marème jaxasoo comme ça Macky xam ne gis nga yàlla rek moo mën a ne yëf yi nii lay amee Macky Sall nee naa leen. il aura des mauvaises nouvelles fii ak 2024 parce que waa Pastef moom dañoo démissionné moom dañu waxante dëgg yambar nañu yàcc nañu yasar nañu ils ont déposé les armes Pastef moom Macky daf leen détruire loolu moom il faut ñu nangu ko ngañ dem na gis nañ ko tey mu génn xaw ma di wax ci xawsaantoo xaw ma parce que rey nañ fa ay góor ñoom looloo leen dese bu ñu gisee fenn tàkk rek ñu génn bëgg koo récupérer mënatuñu xeex léegi dañuy yak dañuy ñaan yalla ñom dañuy ñaan dëkk bi tak mais ñom du ñom ñoo tal de ngañ dem ba heure bi waron na joxe ndigal ah waron na joxe ndigal gat sa gat sa libéré Sonko mais léegi ñom ils sont résignés léegi lenn rek lañuy xaar Macky Sall implosé nee naa la looloo fi dess Macky Sall toog def ay erreur loolu rek fi dess wa waa def mais ku fi tok nan la Sonko moy nek président clé d'or wax léegi ñu bàyyi ko du dëgg. Macky Sall fan lay jaar ba bàyyi Sonko Clédor Clédor kenn xamul kenn xamul fan la jëlee ay ay ay information waaw xanaa leen Macky Sall jéem a génne Sonko réew mi yóbbu ko Qatar te fi mu nekk nii Macky Sall dootu ko def ndax am na lu ko doy sëkk benn bokk yaakaar nga ni tas ñu dàq Mame Boye Diao kan moo ne lii ay kii la ay ay ay ay diil la booy génn di taal Dakar ngeen ne diil la wanu ma leen ko xaaral ma terminer foofu encore. lii lii dil la xaar leen xaar leen lii nan lay nekkee dil booy génn di taal réew mi ngeen nan ma dil la di sànnante xeer li dafa arrangé Macky Sall Macky Sall lii arrangé wu ko Antoine Diome lii arrangé wu ko du dil de c'est pas un deal dëkk lii mën na taal réew mi Mame Boye Diao dafa mer moo tax mu génne booy booy di yàq c'est pas un deal

mais nag cadre Pastef moom dañoo démissionné ndeysaan lii rek a leen dese toog di seetaan voilà voilà gars yi bàyyi la ma coupé live bi euh, ndaru moon sax def live mais tey information xool leen taxi bi tuuti yàqu ko c'est pas un dire Mame Boye dafa mer Mame Boye Diao il est c'est un mégalo il veut être moom dafa xool boppam ne xool leen ma man jantal booy laa je suis présidentiable ah wax jëpp la

vidéo bii moo tax ma def laaj <laughs> vidéo bii moo mu poussé waaw kon ba suba incha allah Nefertiti merci merci à tous laaj leen partagé leen dem leen sama TikTok Mister New York sur TikTok ngeen gën ma jàppale foofu foofu laa ëpp ay vues sax waaw dem leen foofu Mister New York sur TikTok New York nag day am trait d'union merci beaucoup jaajëf Tafsila ba suba vive le président Sonko bu soobee yàlla kenn du ko exilé Sénégal lay toog. fii ak 2024 Macky Sall dina xam ne yàlla rek mooy mooy mooy mooy mooy nas waaw moom li mu bëgg ñëpp mënul nekk Macky Sall il va avoir de des Mister New York voilà merci sur TikTok dina xam ne yàlla rek mooy dogal Macky Sall du yàlla du yonent jaajëf kaay ba suba incha allah merci.